jëlee sa siège rek merci beaucoup monsieur Seydou Diouf xaw ma Seydou Guèye man je suis leen di sant pour wax ci li nga xam ne xawma ma message à la nation wala message à la nation lañ war a tudde ndax démb dañu gis ki nga xam ne moom lañuy ñuy président de la république mu génn ci xale yi di wax li mu wax mënoon na ko sax vocal wala mu SMS waaye jamono boo xam ne Sénégal ñi ngi waajal li nga xam ne li ëpp ci population bi moom la ñu gëm muy guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa jamono boo xam ne xale yi tey la ñu gën dee ci géej ñuy jaale Sénégal yépp ak seeni jamono jamono boo xam ne liggéey mën naa ne tumuranke na ci réew mi jamono boo xam ne tey dañoo xëy FMI génne loo xamante ni ni mooy wane ne Sénégal mi ngi dellu ginnaaw te barki de moo njaay France bu nga xam ne ay foo moo fa am muy Jeux olympiques président bi dafa wax très politique ñun nag suñu président génn wax loo xamante nii amul dara lu ci dëppoo ak dëgg loolu nag dama leen koy faram benn par benn ndax dafa wax ne dissoudre na assemblée nationale loolu ay la yéwén constitution moo ko wax ne su assemblée nationale defee deux ans mën na koo dissoudre damay wax nag Sénégal gépp di rendre un hommage mérité di sant di gërëm député Benno Bokk Yaakaar di leen wax ne parce que ñu bëri ñi ngi wax ne li ñu dissoudre assemblée amuñu benn problème ci dissolution assemblée nationale parce que bu ngeen seetloo communiqué bi génn balaa discours bi di jeex génn nañ communiqué bi xam nga ne kon ñooñu pare woon nañ ci assemblée yàgg na waaye daf ci boole wax loo xam ne. il faut sénégal yi xam ne du dara lu dul maanaam ay njuuj njaay politique président dafa wax premièrement ne assemblée nationale dafa dàq li ñuy woowee débat d'orientation budgétaire te débat d'orientation budgétaire dama bëgg a wax askan wi ne du loo xam ne dafa am vote maanaam dañuy waxtaan ci li nga xamante ne nii moom mooy nan la ñu war a def pour tëgg suñu budget pour année bii di ñëw 2025 waaw balaa ngay wax waxu débat d'orientation budgétaire nga indi sa programme wax projet bi nga xam ne ñu ngi koy wër dëggeen gisagu nga wax fan la jëm premier ñëw def déclaration politique générale waaye non seulement génnewuñu projet génnewuñu programme defuñu loi de finances rectificative indiwuñu def déclaration politique générale ba pare bëgg def débat d'orientation budgétaire loolu yemul foofu ki nga xam ne premier ministre la génn publiquement traité de l'Assemblée nationale de tous les noms maanaam xas Assemblée nationale la deuxième institution du pays alors que moo amul benn légitimité dañu ko fal loolu bi mu amee Assemblée nationale en toute responsabilité ñu woote bureau Assemblée nationale ne kat premier ministre bi nga xam ne wegul assemblée faalewul assemblée amul programme mënuñu waxtaan ci budget bi nañu dàq débat d'orientation budgétaire loolu moom mooy premier wax donc pour wax ne président li mu wax dëppoowul ak li nga xam ne mooy am beneen bi mu joxe comme argument mu ne dañoo rejeter proposition de révision constitutionnelle bi nga xam ne moo waroon a dàq supprimer au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social environnemental dama bëgg ñu wax ma ci àdduna su fekkee ne assemblée nationale lépp lu jóge ci exécutif daf ko war a wote est-ce que kooku la nga xam ne moom mooy rôle mooy contrôler l'action du gouvernement est-ce que dina ko def non seulement dàquñu ko rek parce que dañ ko bëgg a dàq mais dañu joxe ay arguments yoo xamante ni ku ko dégg xam ne lii dëgg la parce que au conseil des collectivité territoriales nekkul loo xam ne Macky sàll moo jëkk-jëkk rek créé ko référendum la d'abord le peuple sénégalais ñoo ko indi mais dafa jóge ci assises nationale yi nga xam ne le président de la de la république bi fi nekkoon muy Macky Sall bi mu nekkee président Union africaine dafa dem devant ses pairs ñu ne institution la boo xam ne nañ ko def ci fépp fi nga xam ne mooy Afrique sow jant mu doon une institution boo xam ne sur le plan africain pratiquement ñépp dañ ko waroon def seen donc soo ñëwee ni da nga koy dàq c'est parce que politique politicienne ngay def beneen conseil économique social et environnemental mais nañ ma wax ban réew ci àdduna bi moo amul conseil économique social ba pare président méngoog jamono président Macky Sall yokk ci environnemental parce que dafa bokk ci nga xam ne moom méngoog jamono ñu ne lii li ko lal mooy politique parce que su fekkoon ne ñoom bëggoon nañ ko supprimer dinañ indi non seulement seen projet mais dinañ ko indi ci session ordinaire mais dañu bàyyi ba session extraordinaire ñu doog mu indi donc muy deuxième argument bi nga xam ne du dara lu bokk ak li nga xamante ni mooy am beneen bi mu ne assemblée dafa jël ay prérogatives am fixé date déclaration de politique générale dama bëgg nag leeral mu leer président de la république ñun dañoo déposer motion de censure pour faire tomber le gouvernement mu ne ca suba ga mu bind décret convoqué session extraordinaire assemblée nationale ak ordre jour boo xam ne moom moo ko bind te article 5 du règlement dafa ne ordre jour session extraordinaire kenn mënu ko soppi moo tax mu bindoon ñu par ordre de def loi de règlement def loi sur la commission des droits de l'homme troisièmement ñu def une loi de ratification de la convention benn convention union africaine quatrièmement mu def déclaration de politique générale ñun noonu lañ ko doxale bi ñu ñëwee ci session extraordinaire conférence des présidents bu assemblée nationale na ngeen lire règlement intérieur bi moo ne ci article 19 seule la conférence des présidents a les prérogatives de fixer les travaux de l'assemblée nationale maanaam ci wolof article 19 bu assemblée nationale dafa ne règlement intérieur bi ci boppam mu ne conférence des présidents kese moo mën a fixer date yi nga xam ne ci la ñu war a liggéey ci commission ak plénière te ku ne xam ne declaration de politique générale plénière ku ne xam ne ne 1960 ba léegi kii fi nekk Ousmane Sonko mooy 16e premier ministre kenn musul def déclaration de politique générale ci session extraordinaire moom nag mu ibbi session extraordinaire moom président. deful date pour déclaration politique générale assemblée nationale ci prérogative yi nga xam ne moom la ko règlement intérieur a may mooy loi organique mu fixer la date du 11 pour la déclaration de politique générale yamuñu foofu président daat ne moom moo war a fixer datu déclaration de politique générale ñu ne ko ay na yowet waaw président de la république Bassirou Diomaye Faye bind signé yónnee assemblée nationale ne man Bassirou Diomaye Faye président de la République du Sénégal comme l'article 84 de la constitution moo ma ko may man maa leen yónnee datu 13 pour que wax ne Ousmane Sonko dina ñëw def déclaration de politique général moom président moo ko bind waa léegi su fekkee ne moom dafa bind ne mooy président de la République ne le 13 conférence kii déclaration politique générale dina am waaye léegi su fekkee ne le treize amul le douze dafa gisul loolu lan lañ ko mën a tuddee wax loo xam ne amul waa wax lu amul ci wolof nan lañ koy tuddee kese donc je pense que il faut que nit ñi xam ne ñun suñu wor ma may ñu ñu wax Ousmane Sonko ni mu daan waxee Ousmane Sonko taxaw na fii Sénégal ñëpp di ko dégg. mu ne kaddu président de ba République Bassirou Diomaye sax gis naa ñu koy waar mu ne nit soo ma nee dinaa ñëw tey ñëwoo soo nee ma dinaa ñëw suba lan ci war a teg un uh. donc moom li mu wax un uh, rek lañ ci war a teg parce que nag c'est très grave et loolu il faut que nit ñi xam ko moom moo waat ne dinaa respecter constitution Sénégal et je vais faire respecter la constitution comme deful loolu nag parjure la def te parjure ci wolof mooy wor voilà donc tey ñetti argument yi nga xam ne président moom la wax amul benn moo xam ne dëppoo na ci ak te li leen di wax ñun dañu ko wax ba pare teg ko ci ay article moom amul dara loo xamante ni mën na ko teg donc liñ ci mën a wax mooy déclaration président de la république démb boo ko résumé mooy du dara lu dul dajale ay argument yoo xam xamante ni amul benn bu ci am dëgg amul benn bu ci dëppoo dëgg ñëw bëgg argument de campagne parce que tey jii xam nañ ne yi pare nañ ci ñoom ndax amuñu xam-xam amuñu vision mënuñu xale yaa ngi dee ci géej gi dëkk bi metti na liggéey amatul. li ñu digoon Sénégalais yi defuñu ko tey jii ñu bëgg une majorité à l'Assemblée nationale bu leen permettre ñu installer un royaume dans ce pays donc li am ba des mooy il faut que Sénégalais yi xam ne ñun dañoo am ci suñu bopp réew mi léegi Seydou wax na ko ne le couple présidentiel parce que kenn xamul sax parce c'est la première fois ci histoire Sénégal ñu gis ne président boo xam ne lu muy wax yépp dafa am un patron politique boo xam ne moom mooy annoncé li mu war a wax donc c'est président auprès du premier ministre donc loolu nag Sénégal yi def naa dañ ci doyal moo tax ñuy wax ne ñun alliance pour la république dañuy woo ñépp ñi nga xam ne ñooy ay démocrate parce que fi ñu jëm mooy dañuy dem vers les élections pour le dañuy wax ne nañu respecter li nga xam ne mooy disposition carte électorale parce que def lu njuuj njaaj ak nekk koo xamante ne ni naroo def dëkk moo tax depuis le 12 juillet ñu jël décision conseil constitutionnel te boo seetloo ñoom bi ñu demee ci plateau yi démb lañ ko commencé génn ne disposition parrainage duñu ko appliquer délai yi nga xamante ni mooy campagne électorale dépôt liste ak lépp li nga xam ne moo jëm ci élection yi dañu nar a réduire tous les délais mais il faut que sénégal yi xam ne conseil constitutionnel du organe boo xam ne dafay voter ay loi il faut que ñu xam ne conseil constitutionnel n'est pas un organe de législation dëgg la organe la boo xam ne su amee cas de force majeure mais bii du cas de force majeure parce que président de la république moom moo fixé délibérément la date du 17 en sachant que problème dina am par rapport au respect des délais loolu il faut nit ñi xam cas force majeure mooy loo xam ne dafa imposé ci ñun. mais président de la république ci teeyu bakkanam moom moo bind ne le 17 la élection yi en sachant que dañuy réduire les délais loolu yebaate la ak maa tey loolu nag sénégalais yi moo tax ñuy woo ñépp ñi nga xam ne ñi ngi dans l'opposition pour que d'abord ñu dajaloo pour que lii nga xamante ni ci lu ñu jëm te mu ay élection yoo xam ne mën parce que dëkk bul élection moo ko taal te élection nag président de la république organise bu Macky Sall organiser na pratiquement plus de onze élections élection yëpp zéro contestation donc jàpp naa ne tey jii dañu war a booloo ci plateforme bu mag te ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti politique yi ku ne fàtte sa bopp ñu def Sénégal ci kanam. laal large coalition électorale boo xam ne ñii bu le 17 au soir dañ leen di imposer une cohabitation parce que sénégalais yi dañ leen di jaajëfal parce que merewuñ leen ci le vingt li ñu wootee 24 mars parce que dañoo amoon yaakaar dañoo voté parce que jàppoon nañ ne réew mi dina soppeeku dañoo voté parce que jàppoon nañ ne immigration clandestine bi dina tax dina wàññeeku dañu woote woon parce que jàpp nañ ne accident yi dina wàññeeku. ñu woote parce que jàpp nañ ne lii nga xamante ni mooy liggéey dina gën a yokk ñu jàpp ne xam nga ne croissance bi dina gën a yokk ñu jàpp ne lii nga xam ne dige nañ ko ci ay euh, appel à candidature dinañ ko def ñu jàpp ne lépp loo xamante ni ci réforme constitutionnelle dinañu ko def mais à la place lan lañ may wax lu dul dëgg yaakaar bu tas xale yi di dee ci géej gi accident yi gën a takkarnaase ñoom nekk fi di gundaataan lépp loo xam ne waxoon nañ ko ñu weddi ko et je pense que sénégalais loolu lañ soxla donc dañuy terminer rek pour wax ne dañuy ñaan képp koo xam ne yaa ngi alliance pour la république nga taxaw temm parce que dama bëgg et parle à Ousmane Sonko ak premier ministre ak président damaa ngi juum sax parce que jàpp premier ministre waaw Ousmane Sonko ak premier ministre. di leen wax ne Sénégal dëkku démocratie la te alliance pour la république ragal yeewoowu dama ne fii ba ñi ngi nekk ci bopp réew mi lépp loo xam ne xalaat nañ ko dinañ ko wax te xuppaate boo xamante nii ñi ngi koy jéem ak lii ñuy wax yépp parce que su ngeen seetloo tey ñi wax ne am na benn ministre bu transiger dañ ko wax kan la xam nga loolu mooy wane ne ñuy waaj a dellu ginnaaw parce que li ñuy wax yëpp c'est des dossiers politiques ils sont en train de préparer chasse parce que xam nañ ne dañuy dem élection législative te ñi ci toog nii bu ñu demee élection duma leen duma yi métti ñu ne nañ leen xoxotal mais dama ne amul kenn koo xam ne mën nañ ko fee xoxotal dama ne su ngeen ñimee seen yooyu ngeen di wax naan ay reddition des comptes ak yeneen tegloon ko ci suuf te xam ne fii rawal yeewoo bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah merci merci beaucoup bon xale yi xale yi nee na moom mujjee ne leen il faut ñoom ñoo xam ne fu mu yem leen merci beaucoup al abdu foog naa ni ci wolof communication bi am na njëriñ am na solo ndax weesu na tënk